ki moo mbiri munoo opposé wu ba jël ko nga ne yow doo bàyyi ñeneen ñi bokk loolu pour lan la Thierno Bocoum marqué na ay empreinte am ci réew mi nañu waxante dëgg Bougane gi Dany liggéey na ci réew mi lu mën a opposé woon nañ leen bàyyi ci seen logique ni ngeen nekkee du yoon baa leen aaki moo bi jëwriñ dee ngi ne tontu ndimbal tontu lay wàcc jëwriñ doo yow eh taxawaayu opposition bu bees yi dem nañu ba nee nañu euh, li nga xam ne mooy émigration clandestine bi na Ousmane ko génn leeral mbir yi ni mu demee waaye nag ñàkk euh, li nga xam ne nag mooy farlu ci ndaw ñi moo waral ñuy dem lu ci mel ni élage ak aada su ma juumal loolu la turbine xëyee donc jukki nañ ci sànq loolu yëpp dafa boole ak déguerpissement yëpp ñu jël ko salax ko ñi nga xam ne mooy nguur gu bees bi est-ce que tey loolu déjà logique la ak it bu dee am na yan saafara lañ war a mën a def pour gindi loolu. Hmm, mooy que ni ñii xamoon seen bopp dañuy noppi. loo tuddee woon jëwriñ Zeyna xam nga tuddee na fi caam caam poobar nee na caam lañ ko wis poobar waaye jëwriñ te jinjeeram bu tàng jinjeer bu xam nga muy tàq xol bi bu original bi la yor. bu xamoon seen bopp dañuy noppi parce que yàggul quoi ñetti weer. ak mm-hmm. léegi lu fi xew bu ko ji. ah ñoom li ñu waroon def lañu defu hmm, ñoom ba ñu jógee ci élection yi passé dañoo waroon renouveler seen parti. Hmm, hmm, dañoo waroon renouveler seen parti. xam ne ñoom échoué nañ. te ndeysaan man li ma metti rek mooy lan moo tax boolewuñ élection présidentielle yi législative bi def ko benn wax ji doon benn. waaw. ñu bañ looloo leen fi bàyyi élection moo leen fi bàyyi nii. mais ñoom kenn amatu ci crédibilité. Mhm. Benno Bokk Yaakaar kenn amatu ci crédibilité même opposition bi sax kenn ak crédibilité ñoom ñëpp dañoo war a baax. Mhm. daal zéro rek ñoo fi nekk bi c'est vrai mais bu ñu boolooyee mën nañu am doole. <laughs> actuellement dañu ngi def ay consultations yu métti nag. amatuñu crédibilité ñoom ñëpp boole boole man waxuma sax ñi demul parrainage mais ñi ñi dem parrainage dem élection ñu boole leen ñoom ñëpp. Hmm. dafa mais ñooñu ba tey patt lañu woote ko mel ni Khalifa Sall déggatuñu ko déggatuñu. Khalifa Sall moom retraite la jëm. Idrissa nag. non kooku yàgg na out. Ah. Pape Djibril am na avenir ci mbir yi. waaw xale la moom peut xale la. Mhm. suñu xarit la de ak a baax. parce que seen politique bii nii ku ci doonul xale mënoo ko doxalat. dafa am loo xamante ni dafa dal dafa amoon loo xamante ni xamul woon li ko may. Mm. Mhm. Mhm. mu sàgg ne loolu ba loolu rëcc ko. Mm-hmm. Pape Abdoulaye Fall lu mu amoon yëpp Sonko ko may te ku yëgul woon na. ah bon. Hmm. bu def émission y quinze mille personnes qui le regardaient. et puis dafa am hmm. dafa am gis nga poli koy def politique. da war a am vision. Hmm, c'est important. da nga war a am da nga war a mën a lire société ni muy doxee. ah da war a xam tamit état psychologie bu dëkk bi sociologie da nga ko war da nga war a xam Malick Gakou chaque année day bokk mais dañu gis ni. pourtant damay laaj. bàyyi leen sama doom fi ah. kii tooñkat la. <laughs> tooñkat la waaw ma ne. damay sama doom bi yow. Hmm. dañuy xool nu ñu dajalee trois yeeg deux yeeg. dañu toll ci phase bu sérieux. important. parce que oppo hmm, kuy opposé. Mhm. Pastef. Mhm. man gisoo ko ci nii. dama leen wax di nga nekk xale di nga xam-xam. Mm. di rafet. Mm. ah bon rafet gi da ci am kii. ak ci am mm. waaye Diourif xam nga sama xel bi yóbbu nga ko ci ci ci veste yi problème mu veste bi am ci réew booy yi. ma wallaay wallaay waaw mën nañoo sañ sa dëgg la de. Eh, ba léegi sax ba pare made Sénégal lañu sol li ma ci gën a neex ay made in Sénégal wallaay waaye jusqu'à présent rek. Bassirou nee leen personne ne me fera chanter loolu moo may rey. <laughs> xoolal wax jee soft ba pare ànd ak fulla ak fayda. personne ne me fera chanter. yomb quoi. Eh yomb ñoom mm. parce que man. Mm. man moo ma jaaxal ci politique ci Sénégal. Mm. da ngay échoué. échoué waat continuer di échoué waat te que boo xoolee ci élection yi di yi ñu weesu. Mm-hmm. Euh, jëwrin mm-hmm. dañu am ay candidats yoo xam ay novice lañ. Mm-hmm. dama ci cité ñaar yu ma maîtriser muy Mame Boye Diao novice. ci en terme dëggal boppam ci politique. ak Aliou Mamadou Dia moi je pense que ces deux là. Mhm. am nañ avenir politique. Anta Babacar Ngom sax am na avenir politique. Ah. Anta Anta Babacar aussi c' était la première fois mu ñëw participer ci élection et elle a si bu fekkee am nañ jàngat politique tu verras beaucoup d'hommes politiques yoo xamante ni dañuy disparaître. Mhm. muy clique googu ngay tudd ay ñoom. magi démb magi démb ñoom xalifa ñoom sa ñoom Malick Gakou. je pense que il il serait préférable ñu nekk derrière. ñuy ñu accompagner seen jeunesse parce que moi je disais que Pastef euh, euh, APR autant pour ma ak yeneen parti benn avenir lañ amaat. pour nekkaat ci seen politique bi. mooy ñoom ñëpp ñu dem ginnaaw. Mhm. indi ay tête yu bees ci seen renouvelé waat indi ay xale bi mi ngi fi aussi. non pourtant am na xale yu fa nekkoon yu jàmbaar yu nangoo liggéey moi je man man ko ne mais tant que ñoom ñu ngi ci kaw ne duñu ñu pousse may xale yi. Mm. ce sera la même chose. la confiance des Sénégalais dans tout ça aussi c'est important. ñu ngi fi di politique c'est ça de alalu Sénégal la nga téye baax na continuer. fi nga téye am na solo. man parce que dafa war a gaaw nag bagage yi gaaw que sonn ci genre image yi quoi. mais vois. made Sénégal bi ñu doon wax sànq. mi ngi nii mhm. Seydina Issa Laye yow nit ku baax nga. Mhm. ci ci ci ci machine ba nga nekk. borom ndaanaan la. xam nga xam nga réseaux dafa am solo boo xoolee. xale dañoo jantal de yokk ci ci ay. dégg naa seen liste yi hmm, yokk na de xaadim. Mhm. seen liste attente yu bari na de. Ah. ah yow xawoo tippoo kenn wala nga. non non ma kenn am naa pare. dama am naa <laughs> bàyyi ma bàyyi la ak nga dugg yow nga dugg. <laughs> mais daal en tout cas moom. dafa am lu am solo lu ñuy def moom mooy made in Sénégal. c'est important. te loolu dafa am solo. parce que nit. sunu ay njiit ñoo ñu war a wan yoon bi. parce que ñun bu fekkee ñun génération bi dañu complexé heureusement nekkul ci ñun parce que xale yi rek ngay gis léegi gisoo maître lu mu sol. gisoo xaadim lu mu sol. wala jëwrin bi yëpp made in Sénégal. donc donc donc ñoom bu ñu ñëwee di ñu di ñu gën a wan yoon bi daf ñuy gën a jox. Mm-hmm. confiance. xoolal bi muy dem France lépp am na def ci bële. lépp am na fi lépp am na Sénégal dara manqué fi. xam nga am na dama fàtte rek mais am na image bu ñu waroon bàyyi mu jàll dañu jël image bu Macky Sall bi muy euh, dem xaw ma fan. mini mm-hmm. bi demi saison bi boole koog bu jomaay bi muy lu ma metti nag ndax donte ne <laughs> mag la jóge na fi waaye nañ koy continuer. Ah, war ma la wax yàlla la ah. magu xale yi ah. Pastef ñoom kenn du opposé yéen ñii luñ bëgg. <laughs> nekk opposition nekk pouvoir yéen <laughs> tamit nag li ngeen bëgg nii dafa yomb de bàyyi leen xale yi <laughs> opposé wu bàyyi leen xale yi ñoom mag ñi laa d'accordul mag ñi moom nañ jël retraite nekk ci ginnaaw xale yi mm. ku ñëw tegal xam-xam mm. fa idée idée sàmm mm. gisoo sax léegi débat bi ni mu xawee ni mu ni mu mm-hmm. léegi mm-hmm. mu looy engagé plateau yi ñii ngeen ñi nga xam ne sax nag ñoo doon nekkoon dans des tergiversations. Mhm. boo xoolee léegi ils ont fui les plats. c'est important. Mhm. parce que tey niveau débat bi xam nga mënoo am tamit 2 millions d'abonnés. 2 mhm. millions sénégalais di la seetaan. xam nga ngay ngay ngay ngay ngay. tergiverser voilà ngay tergiverser. Ah. donc aujourd'hui li ñu bëgg rek. wax nañ ko waxaat. gars yi dañuy fay di seetaan. parce que dañuy jënd. waaw te léegi dama baax la de. xam nga maître xam nga maître. gars yi dañ naa la amuñu correction bu ñuy yàq di seetaan. mais maître fu ne da ngay dégg xam-xam. dëgg la. jëwriñ fu mu ne da ngay dégg xam-xam. Mhm. Seyna idem. Mhm. Mhm. donc loolu la Sénégal soxla. parler parler peu et bien. cette cette rupture là. systémique. da cee bokk. c'est important. barki démb bi président recevoir ay des jeunes reporters. xamal leneen. ñoom importance bu ñu am. Mhm. waaye ñoo ñoo am fulla ñoo am fulla convention des jeunes reporters ay jàmbaar lañu. man xam nga mhm. ñoom booy wax ci ñoom dañuy taxaw tuuti. Mhm. parce que bari na ay arrestation yoo xam ne jàll na fi. ay patron de presse nekk fi. ay patron de presse yi di geer naan impôt moo tax ñoom seen xeex ñun suñoo nekku ci parce que ñoom ñoo génnoon convention des jeunes reporters lu metti metti nañ la fekk tribunal. bi ñu jàppee Pam Ndiaye fekk nañ ma fii ci euh, cave tribunal. Mm-hmm. laataa ngay wax an nit ñi association yi ñoom ñëw nañ ba teew kon bu ñu demee ba yegg ci président de la république yóbbu seen i ay kii lu président war a mën a jàpp defal leen ndax ay jàmbaar lañu mm-hmm. patron de presse nag wax dëgg yàlla man man xamal ma leen dara xamal ma leen lu bëri <laughs> du noonu ñu àddu dem ci beneen ponk di rek euh, bi nga xam ne maître mooy Mansour Faye moom la gall ci ndoddu euh, Aminata Touré euh, moom nag waxtu wi la mu koy jiñ rek bokk na ci cent milliards